Pekom. ko ci social bobu lañuy lañuy dess des ba légui parce que boné Alim Badara Diouf rek xel ya, da fay dem ci social eh, wax nga ko yag nga ci mais lan mo la motivé ba tax nga jóg rek jël social te fii gis nañu ñu bari social comme nu ma ko mën a waxee eh, jàpp nañ ne fii Sénégal social mooy woote fii maye ceeb maye suukar woo presse bi ñu ñëw wane ko ñu ne diw mi ngi def social mais dañu gis ne Alioune Badara Diouf social yaa ngi koy def te eh, bari na ñoo xam ne xëy na peut dañ lay jege wala ñu xam li ngay liggéey xam ne mi ngi mi ngi def social lan moo la motivé ba dugal la ci ci ci social bi nga xam ne yaa ngi koy def dañ xàmme la ci. Ah, loolu li ma motivé mooy. Mm. ni ma la ko waxee léegi rek tantôt euh, nit euh, dundam gat na gàttaay boo xam ne yaakaar naa ne jëf ci jëf ju rafet jaamu ci yàlla rek moom moo ci moo ci xej moo bu fekkee ne da ngay tan di tan doxalin ah war nga tànn boo xam ne d'abord war nga la mën a jëriñ ndax nit foog mu jëriñu mm-hmm. mais aussi war nga tànn boo xam ne war nga ci mën a ah yaakaar naa ne loolu rek doy na comme comme motivation ah, def ko it nag te yàlla rek tax moo tax loolu mën nañu ko natt ci ñaar comme ah, ni nga ko junjee léegi xëy na duñ ne dafa bon ci ñi nga xam ne dañuy def social woo presse bi ah, loolu oh, man mi xëy na ci am na ci benn fànn boo xamante ne dama koy def ndax xëy na social bi ñuy def ñun mën na luñ ko suñu bopp mm. dañuy am ay partenaires. Mm. am it ñoo xam ne ay bonne volonté la yoo xam ne dañ ciy dimbalante ak ñoom ñu am ci ñun confiance ah, ñooñu nekkuñu fi léeg dañu lay wóolu euh, nga am programme boo xam ne dama dafa jëm ci askan wi ah, nga laaj leen dimbal wala nga laaj leen appi ñu appuyer la ñooñu nag dafay laaj nga immortaliser loolu dafay laaj itam nga won population bi ne lii kat bu fekkente am réew la moo ko def réew moomu kat mu ngi def lii ci biir Sénégal bu fekkente ne ay doomu yeneen réew la it nga mën leen ne ah doomi réew sangamkat ñoom ñooy dimbalee lii réewu senegal bu fekkente ne itam ab kuréel la muy ONG wala yu mel noonu a ah, ñoom it ci seen biir liggéey dañuy bëgg loo xamante ne nii vraiment day day day euh, jox seen liggéey mu gën a crédible ndax ñoom ñooña di ko joxe it dañu am yeneen partenaires yoo xam ne ñoom ñoom ñoom la ñuy laaj ñu leen di jox muy dem ci dem ci jëm ci population bi te ñooñu ñu war leen rend compte man yaakaar naa ne ci côté boobu te ma dem man naa ne ci ONG yi ak yeneen béréb yi may yëngu ci social loolu mënta ñakk loolu nag tekkiwul na nit ki daf koy def ngir fes mais liggéey bi moo koy laaj ndax wax dëgg yàlla bu yemoon ci rek man ñu am ci lii kat ci askan wi la jëm am na ñoo xam ne bu ñu melee ni man amaan na bu yemee rek ci nit ki mu dem def naa ko loolu dafay yomb bu mu ëpp mais nit ki daf dafay am loo xamante ne bii euh, mooy justifier li ngay def moom moo koy jox firnde. Mm-hmm. kon loolu ci anam boobu la te ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax. Mm-hmm. leneen li nag mooy li nga xam ne nit ki moom moo ko moomal boppam. Mm-hmm. mënal ko boppam wala mu koy jéemal boppam. loolu yow yaa ko moom. ah te jàpp naa ne bu fekkente ne yàlla rek moo tax nga koy def yow yaa ko tànnal sa bopp. Mm. loolu war nañ ko delloo comme ngeen gi mbindeef li ma waxoon. Mm. nit ki loxo góosam bi nga xam ne moo taqoo ak moom jege lool loxo droitam. Mm. a ah, wax dëgg yàlla war ngay mën a joxe loo xam ne ak sa loxo droite loxo gauche bi sax du ko yëg loolu yow yaa ko moomal sa bopp a ah, te jàpp naa ne bu fekkente ne nit ki day def rek te yàlla tax ah loolu moom war nga koo defee ci anam boo xam ne war nga koo doxale noonu mu bañ a am benn gistal mu bañ a am benn wonewu xëy na leneen li ciy des nag ay rëcc-rëcc lay doon yoo xam ne nit ki dina bëgg euh, def loo xamante ne bii souvent sax du bëgg nit ñi xam ko mais xam nga société Sénégal sa sénégalaise ni mu mel ah léeg nga sëq ak nit dara mu génn diw moo ma defal lii loola jógewul ci yow mais amaan na itam mbaaxu ka nga ko defal la te loola it ñu wax ne dafa bon euh, ndax nit ki ñu defal la lu baax fësal ko wala nga waxtaane ko wala nga wax ko ki nga ko war a wax mhm. ah loolu yëpp ci nite la bokk ci imanité la bokk mhm. ah, jàpp naa ne daal fekk nit ki ci xolam mhm. jàppeewul li muy def ab wonewu ah, gis naa ne daal loolu lépp yiw la te lépp it ngeneel la ah. Euh, ba léegi ñi ngi ci social bi jóge guñ fi ndax andi nga tamit ay leeram macha allah. Hmm. Euh, xëy na question yi du doon pour ñun waaye ñi nga xam ne ñi ngi seetaan Aliou Badara jouf te bëgg a hmm. xam. Hmm. Euh, loolu moo tax dafay baax ñuy ñuy leeral bu baax a baax. juma ak jàkka yi nga xamante ne ni yaa ngi ciy duggal sa loxo bu baax ba ñëpp ràññeeku la ci. yaa ngi tabax ay jumaa ay jàkka ba ñëpp ràññee la ci aussi loolu fan lay jógee ndax ci réewu arab yi te ku ne xam na ni sa diggante ak arabisant yi ngeen ñoo nekk sa ginnaaw aussi. waaw. wala say propre moyen ngay demee <laughs> ndax ku ne xam na ni. man tabax jumaa yombul. waaw donte waxoo ñu ko ñun dañuy dañuy dégg. dëgg la lool loolu it dañ koy dañ koy jàngat rek. Mhm. moom it ci ñaar ci ñaar mhm. ñaari volet. Mhm. ba ci njëkk mooy à travers man. sama bérébu liggéeyukaay. mais aussi à travers ONG bi nga xam ne dama ci bokk. Mm-hmm. ONG bi nag man dama ci nekk membre. Mm-hmm. di ci liggéey ak samay naataangoo. ay nit ñu jàmbaare ñoo xam ne mën naa ne ñun ñoo bokk bëgg-bëgg. Ah. Euh, te mooy fexe euh, jaamu yàlla fexe jege askan wi. Mm-hmm. Ah, bu fekkee ne ci côté boobu loolu du liggéeyu Alioune Badara. donte nag xëy na ca xalaat ba ci démarche ya. Ah, dama ca ànd ak. samay moroom samay nawle. Mhm. samay mbokk ñu koy def. Mhm. ah bu dee loolu la euh, yaakaar naa ne mhm. euh, lu war la. ndax ñaar yi nga tudd. muy tabax école ay nit di ca jànge ëllëg ñu tekki. mën na mën a yor seen bopp. mais aussi mën na jëriñ seen réew dara gënu ko rëy. mais bu dee itam bërëbu jaamukaayu yàlla. nit ki tabax ko wala mu bokk ca wala mu xalaat ca. ak li ci nekk ci ay ngeneel. Ah, wax dëgg yàlla loolu it yaakaar naa ne nit ki bu doon jël comme métier rek mhm. ah, war na mën a doy mhm. ndax ah, mën nga ci yëngu ci àdduna effectivement mais liggéey la boo xam ne nag wax dëgg yàlla day sax ndax fekk mu ngi fi mhm. xiiwalam ak tiyaaboom nit ki da ciy jot mu doon lu am solo mën naa ne wax dëgg yàlla neex ñu lool nag ñu ciy yëngu da ci dimbalante ak képp koo xamante ne kii bëgg nga ko te ñu mën ko wala ñu mën la orienté mm. euh, beneen bi mooy man ci sama bopp ci sama vie politique mën naa ne ñu bari dañ ma ci xaw ràññee euh, xam nga politiku Sénégal dafa yàqu wax naa ko léegi bi ñuy ubbi dañu ko banaliser ba nga xam ne euh, mën naa ne niñ ko waroon a pratiquer dëgg dëgg dëgg dëgg ba askan wi kàddoom bi muy jox politiciens yi war ko mën a jëriñ loolu dafa amatul. li ko waral nag mooy koppor giñ ci dugal ak xaalis nga xam ne mën naa ne foo jëm nit mu ngi am lu ñuy xaar ci yow nit ñu ngi am lu ñuy séntu ci yow ñun nag ñu commencé bëgg a gisee politique beneen gis-gis wala ñu bëgg ko doxale ci beneen façon te mooy nit ki waruloo koo fekk di yëkkati sa alal di teg ci loxoom ngir convaincre ko wala nga yëkkati sa alal di teg ci loxoom ngir jënd conscience loolu wax dëgg yàlla ñun dañu bokk ci ñi nga xam ne dañ ko ñaawlu dañu koy xeex mais comme mënu la ñàkk nit ki léeg nga génn ci population bi nag ñi am lu ñu lay demandé am li ñuy soxla mais yàlla dimbali nañu ba ñu orienté wu nga xam ne la plupart bu dee loo xam ne ñun ñoo ko moomal suñu bopp. mu war a jóge ci politique war a dem ci askan wi ñu xool loo xamante ne mën nañ ne intérêt comment la te loolu wala intérêt public. mooy fekk école boo xam ne ay nit ñaa ngi fay jànge mu am ay manquement bu ñu amee suñu tuut mu bari mu néew ñu dugal ci biir bu fekkente ne jàkka la boo xamante ne bii ñoo ngi koy tabax yeegut population bi yëpp a ko bokk ñu dindi suñu tuut dugal ci biir souvent nga dem ci dëkk yoo xam ne ñu ngi jéem di kos-kosi di tabax seen dispensaire wala ñuy tabax seeni armel wala leneen lu mel noonu nga xam ne population bi ñoo ko bokk loolu moom ñun dañuy jël suñu alal souvent di ko ci def mais bu fekkente ne nag comme fi ma ko tàmbalee euh, jàkka yi école yi dispensaire yi ñuy tabax wala euh, ndax social liñ ci yëngu nag gën na yaatu loolu mm. ngi ay orphelin mm. yoo xam ne seeni way jur dañu génn àdduna bàyyi leen amuñu doole mm. mënuñu faju mënuñu jàng nga xam ne ñun dañ leen di jël en charge ba ba ñuy majeur majeur bu ñu feebaree ñu faj leen bu ñu waree yi ñu leen di jox ay bourse Ah, ah bu ko defee ñuy fay seeni école loolu yëpp dañ ciy yëngu wala yenn famille diminuée yi nga xam ne amuñu doole wala léeg-léeg yenn euh, kii yi nga xam ne day ñëw nga xam ne euh, comme mbënd mi mm-hmm. euh, nga gis zone yoo xam ne léeg-léeg touché na leen mu xaw a métti ah nga am sa appui bu am doole bu dee ci dund la bu dee ci matériel la wala lu mel noonu nga dem yóbbul leen ak itam di ubbi ay école yu bare bare bari ci biir ci biir euh, au niveau national. Mm-hmm. Ah, di jàngal nit ñi ndax nit ki xam nga ne boo ko jàngalee comme ni ma ko waxee léegi mu mënal boppam mënal askanam euh, bu ko defee côté boobu dañ ciy yëngu bu baax a baax ah, mais loolu mën nañ ne am na loo xamante ne bii moyen membre yi lay doon muy contribution yoo xam ne ci ñun lay jóge muy d'abord xam-xam bi xalaat bi. mais aussi itam tëgg ay projet yoo xam ne bu fekkee ne mënuloo ko financer mën nga uti partenaire boo xamante ne bii mën na la ci jàppale. loolu nag yàlla dogal na ñun ah, comme suñu spécialité njàng arabe la ah, suñu liggéey ak suñuy relation yitam daanaka mën nañ ne dafa xaw a jëm ci côté golf bi ah ñu ci ut ay partenaires yoo xam ne wax dëgg yàlla ñu bëgg lu baax lañu bu ko defee liggéey boobu ñoom ñoo ci jàppalante ak ñun loolu nag moo xam comme ni ma ko waxee mu nekk ay gouvernement ndax ñun liggéeyuñu rek ay individu nii dañuy liggéey ak ay gouvernement ay état mais aussi dañuy liggéey ak ay ONG dañuy liggéey ak ay association yu am doole wala it nit ku ci nekk am nga liberté nag nga bëgg lu baax liggéeyal sa bopp moom sa alal nga ne man kat dama bëgg a tabax dispensaire wala dama bëgg a tabax école dama war a bëgg a dimbali néew gi doole ah ñooñu itam ñoo ngi liggéey ak ñoom ah ñu nekk suñuy partenaires yoo xam ne ëpp na plus trente ans Euh, ñu leen di remercier ñoom it au passage ah di ñaan yàlla itam taxawaay boobu nga xam ne dañu ko taxawee di ko taxawee askan yi yàlla fay leen ko ndax ni ma ko waxee ci ñun noonu la waree ci ku nekk euh, dimbalante nit moo ci war a tàggat boppam moo ci war a yar boppam ah, bu fekkente ne yeneen pays yi Sénégal agagul ci niveau boobu ñun comprendre nañu sens boobu bu baax a baax a baax ba organise woo nañ noo xam ne mm-hmm. nit ki même yow mii tey ci li ngay yëngu mm-hmm. nga bañ ko xe même bu fekkonte ne sa weer cinquante mille franc la mm-hmm. bu fekkente ne cent mille franc la même bu dee trente mille la femme de ménage bi nga xam ne mu ngi liggéey ah moom gëmee na ko noo xamante ne bii jàpp na ne liggéeyam boobu wala salaire am boobu mu bari mu tuuti war na ci génnee lu tuuti même bu dee 1000 fanaan la boo xamante ne bii mën na ko te du ko wàññi dara mu sas ko boppam par weer nga xam ne daf koy dajale état yooyu organisé wu nañu am na ñoo xamante ne bii kees yoo xam ne mën nga di di ko fa versé ah mën nañ ko gase teen boo xam ne ay nit ñoo ngi koy naan naan nga xam ne xamuloo sax fan lañ ko gas ci àdduna bi nit di ci naan mu doon tiyaaba jur yi di ci naan wala ñu tabaxee ko jàkka wala ñu tabax ci dispensaire wala ñu tabax ci école wala yu mel noonu a ah, bu ko defee ñooñu ñëpp dañ ci jàppalante ak ñoom mm-hmm. a ah, à part itam fii ci biir Sénégal encore am na fi ñoo xam ne xam nañu sensu social ak sensu liggéey yàlla yàlla mm-hmm. fayeegu ci ëllëg mm-hmm. nga xam ne ñoom it léeg dañ leen di conseiller di leen orienter nga xam ne ñoom it ñu ngi def donte nag souvent du feeñ mais yaakaar naa ne liggéey bi daal gën na yaatu noonu xanaa xanaa rek ci résumé. d'accord hmm. euh, ginnaaw bi nga bi nga bi nga waxee ci école yi wax nga ci ci ci ci mi ak lépp. Hmm. Euh, ndax yéen a ngi xel euh, ñi nga xamante ni jàng nañ ba yor seen ay diplôme di wër te amuñu liggéey yéen a taxawal ay ONG ay entreprise yoo xamante ñoom suñu suñu jàngee tey ba am seen ay diplôme mun nañ fa dem liggéeyi léegi nga sa rek dama réew mi wala dama jël mi dem pour am liggéey. xam naa sama xel dafa am ci li mu nekk léegi balaa may tontu ci question bi nga may ma rek ma leeral ci tuuti ndax au delà wax naa ko léegi sama liggéeyukaay mais aussi ONG bi ma tudd léegi dama bokk encore ci benn kuréel benn association boo xam ne man dëkk bi ma dëkk mën nañ ne population bi yëpp ñoo booloo ku ci nekk ci religion ba nga bokk ci tariixa ba nga bokk wala confrérie ba nga bokk wala ci parti politique bi nga bokk loolu yëpp dañu ko teg fale mais ñu booloo loolu dañu ko initier ñu bokkoon ci ñoom it xam naa ne de di fenêtre bi mënuñu ko tëj te remercier wuñu leen au passage man mii am na jamono joo xam ne biñ koy soog a soog a initier man lañ ci jiitaloon mais comme c'est apolitique bi ma demee ba gis ne war naa mën a gën a yaatal liggéey bi mu jóge ci village bi ma nekk mais mu gën a law a ah, wax dëgg yàlla ci la bàyyee coordination bi mu ngi continuer ba léegi ñu ngi leen di remercier di remercier population bi di remercier membres yi ñu tuddee woon ko association Gaat Bokk Xalaat Gaat mooy village bi ma dëkk d'accord ñoom mën naa ne modèle bii ma doon tudd tey. référence la ci Sénégal. ndax bi ñu toogee dañu ne nañu boolo dëkk bi ñu dëkk war nañ fi mën a liggéey. ñu mën a toog di xaar état. am nañu problème ci njàng mi am nañu problème ci santé bi am nañu problème ci développement jigéen ñi. am nañu problème comme ni nga ko waxee léegi. ci gën a gën a gën a jàppale xele yiy jàng di leen orienté. am nañu problème ci épaule étudiants yi nga xam ne léeg-léeg dañuy jóge ci village yi di dem ak leneen ak leneen. Mm-hmm. ci la woote ci suñu village macha allah village bu mag la ñu ne lu waaye am joxe. yàlla dimbali ñu suñuy dispensaire tab jëndal nañ leen ay ambulance ay ambulance médicalisée. Mm-hmm. tabax nañu fa ay salle d' observation yoo xam ne boo fa demoon tey ci ay ville rek nga koy gis. Mm-hmm. abri provisoire yi xeex nañu ko ndax suñuy école boo xoolee lépp ay abri la woon hmm. population bi ñuy cotiser seen ñaari dërëm seen ñetti dërëm seen dugub ak seen ñebe hmm. di dajale vraiment di jàppale xele yi jàng ci ay cours de vacance mais aussi bu école tëjee ñu xool meilleurs élèves yi ñu leen di ñu leen di primer hmm. euh, di leen gën di motiver ak leneen ak leneen liggéey yoo xam ne wax dëgg yàlla population bi mën naa ne li ñu ci def ci ay chiffre d'affaires ah buñ la ko doon wax ci ay million ëpp na ay téeméeri million te population bi rek ñoom ñoo koy ñoo koy dajaleel seen bopp loolu it modèle bu am solo la mhm. ah, wax dëgg yàlla mënuma toog te te te junjuma ko mhm. ah, xëy na nag bugguma ci bugguma ci sori comme dañuy wax ci politique mhm. te association bi c'est apolitique mais dafa doon loo xam ne waxatuma pour dëkk bi référence le pour Sénégal mais aussi itam ñi koy def ay référence lañu ñooñu yaakaar na ne war na leen remercier au passage euh, wax dëgg la population bi yépp la nak kenn dessul ñëpp ci japp ak fu nit ki mën a mën a nek ak fo mën fété amul politique amul dara lolu dinañu ko dinañu ko wax bu ko défé pour ñu revenir ci sa ci sa ci sa question bi yaakar na yaa ngi doon wax ci njàng mi nga xamante ne nii tey njàng mi toll na foo xam ne léegi da nga naan sax am na xam dañ naan jaral la pour mokk ndax da ngay jàng ba yor say diplôme hmm. wañ ko waat fan ngay mujjee nekk femme de ménage sa nam dante aayul sax nak ndax hmm. eh, métier la waaye waa liggéey la waaye jàng ba yor sa ay diplôme ba pare amo sax liggéey hmm. munoo am liggéey am ñu muy jaral ñuy jël mi di di dem fii ba eh, bitim réew pour wuti liggéey ndax yéen a ngi leen di bàyyi xel ci ci social bi nga xam ne yéen a taxawal ay ONC entreprise ne Euh, boo jàngee ba am say diplôme di nga mën a liggéey fii sa biir réew. ñoo ngi leen di ñoo ngi leen di bàyyee xel ndax mm-hmm. yaakaar naa ne léegi maa ngi lay junj. Mm-hmm. taxawaay bu am solo bi nga xam ne am nañu ko. ci jàng bi ak jàngale bi. Mm-hmm. mais aussi taxawaay bu am solo bi nga xam ne. am nañu ko. ci yenn famille yi nga xam ne wala yenn élèves yi nga xam ne seeni parents seeni loxo. jotul seen gannaaw. Ah, ñu leen di octroyer ay bourses yu am solo yoo xam ne. lay lay xalé bi dina ci man di jafnu mm-hmm. ba ba muy jang ba am bakam ba def formation wala mu dee dem université mu orienté wu mm-hmm. ah lolu liggéey la mais aussi mm-hmm. ñong waxna la ko légui ñun dañuy ubi école yo xam ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi bu baax a baax a nit ñi difa jangé ah ñu leen di sensibiliser nak ah, di leen jangal jàngal ñen ñi ay métier ah, ñeneen ñi ñu leen di ah, langue ndax foofu dafa am solo xam nga Sénégal fokk ñuy diversifier mooy dañu bëgg a jàpp rek ne njàngu nasaraan rek ci la doomu aadama war a mën a jaar ba tekki mu doon nag erreur boo xam ne jàpp naa ne tey école franco arabe tey model bi mu ci joxe wane na ne yoon la boo xam ne itam nit war na cee mën a jaar ndax man mii war naa cee mën a wax lu bare bari ñoo xamante ne tey tekki nañ lu bari ak nañ fu sore sore sore ci la ñu jaar ah, loolu ci la bokk mm-hmm. muy jàng jàngale bi leneen li itam mooy ONG bi ci boppam mm-hmm. ah mu ngi taxawal ay kuréel yoo xam ne mm-hmm. doonte nag am na loo xamante ne bii mën nañ ne prérogative u état la nag waaye ñun ci ni ñu mën te mooy xeex ndool ñu ngi koy def ndax ñu ngi jéem a taxawal ay kuréel yu ndaw yoo xam ne lu mu gàtt-gàtt am na ci yoo xamante ne nii ah fukki nit ak juróom ñoo ngi fay ñoo ngi fay ñoo ngi fay yëngu tey di liggéey di yóbbu seeni kër am na yeneen yoo xam ne lu ëpp fanweeri nit ñu ngi fay ñu ngi fay liggéey mm-hmm. ah école yi gis nga am na ñoo xamante ne bii ñu ngi jàng tey waroon a gën taxawaalu ji dañ leen di recruter waat mm-hmm. dugalaat leen ci biir système bi mm-hmm. ñi nga xam ne mën nañu am bourse te mën a jàngi bitim réew encore ñoo ngi leen di gunge di leen toppatoo ñu dem jàngi mën a dellu siwaat encore Sénégal mais ñi nga xam ne ñoom it dañu am banque euh, bac mm-hmm. ñu ngi leen di defal formation bu am solo boo xam ne ñoom itam daf leen di yombalal concours yi nga xam ne état bi mu ngi koy def te muy jàng ak jàngale ñu ngi ciy mën a dugg te loolu vraiment ak formation bu am solo boo xam ne dañu am niveau bu baax ci arab mm-hmm. am niveau bu baax ci français mais aussi am niveau bu baax ci anglais mm-hmm. loolu lu am solo la boo xam ne mën nañ ne wax dëgg yàlla yàlla ñuy suturaal ah ñu ngi ci def liggéey bu am solo boo xam ne buñ doon wax résultat bi tey. Hmm. a ah, wax dëgg euh, mën nañ cee wax lu baree baree bare baree bare fii à Dakar wala euh, Bambey. waaw fépp ndax mën naa ne oh, liggéey bi c'est niveau national. Hmm. yemul Dakar rek hmm. région yu bari Sénégal. boo fa demee ba ci Sud. Ziguinchor. ba boo demee ay ay ay Kédougou. Euh, vraiment école yaa ngi foofu. Saint-Louis ay Richard Toll. Mhm. ah mais aussi xëy na nag. Mhm. Euh, Bambey mën na ci am wala bu am solo. ndax comme moom mooy. Euh, ni ñu koy waxee siège social lu ONG bi. Mhm. <laughs> man it fa laa dëkk. ak ñii liggéey mën nañ ne ñëpp fa la ñu fa la mooy seen seen seen cosaan. Euh, fa la gën a yaatoo nag mais mu ngi law fépp ci biir Sénégal. Mm, d'accord comme ni ko olof di bay sa wewu tànk. macha allah ba Badara Diouf la ñu àndaloon ci seen émission seen acte politique yaakaar naa andi na ay leeral bu baax a baax ci li nga xamante ne ni moom lañ ko moom lañ ko doon laaj. Euh, di la wax ni tey soo amoon euh, dénkaan loo xam ne da koy joxe ci réew mi. Mm. ak président de la république. Mm. lan nga koy lan nga koy wax. waaw ndénkaane bi day xam naa ne yaakaar naa ne li koy jëmmal rek mooy euh, li ma ubbee léegi euh, vraiment Sénégal day wax dëgg yàlla nit ñi sonn nañu te yàlla nag bawuñu yaakaar naa ne lépp loo xamante ne nii nit ki mën na ko jëmmale ci kanam lépp loo xam ne mën na émerger am réew lépp loo xam ne war na ko mën a yëkkati ba doomi réew ma mën a yem ca biir réew ma di ca sutur la ak seen dignité senegal defal nañu ko xam-xam baa ngi fi lépp a ngi fi li des nag mooy politik bi nga xam ne tey moom lañu tubaab bi bàyyee mu nekk loo xam ne boo ko doon topp jamonoy colon ya ba biñ ñu waxee ne jox nañ indépendance te joxuñ ko xam nga ne wax dëgg yàlla amuñu indépendance euh, dara soppeekuwul dama koy wax souvent ñu toll ci jamono joo xam ne xam-xam yegg na foo xam ne yelente woon ñi ñuy jiite xam fi askan wu toll tey ci niveau des fois damay wax sax ne est-ce que du population bi ñoo ëpp niveau ñi leen jiite ndax tey coro bu ma toogee ci sama kër maa ngi xool États-Unis saa bu ma yeewoo ci sama télévision wala ci sama téléphone nit ñaa ngi xëy di got nit ñaa ngi liggéey nit ñaa ngi inventé nit ñaa ngi développé boo xoolee France boo xoolee Suède boo xoolee Arabie Saoudite nga yaakaar ne sénégalais boobu tey réew moom yooyu fi ñu toll jeunesse su tey bi dañu war a toog rek jàpp ne dañu war a toog mais bu ñu jógee talal réew yooyu loxo te loolu xam-xam rek a koy def te yalla yàlla dimbali nañu te tey ressource bi nit yaakaaroon sax ne tey mooy yóbbu am réew ci kanam li ci Sénégal am réew yooyu amuñu ko ah jàpp naa ne day ñi ñuy jiite bu ñu bu ñu jàppoon ne réew xam-xam moo koy développé mais aussi réew ak njub moom moo koy développé ak transparence ak liggéey jàpp naa ne politique bi ñu dund tey duñu ko dund mu doon nag lu décevant lu doy waar ba tax na ndenkaane yi ñuy def mooy joxe mooy tuuti nañ ci sax xam naa waaye ci suñu gëm-gëm te moo ñu motiver ñu dugg ci politique mooy ñu xam ne Sénégal dafa soppeeku Sénégalu Senghor du Sénégalu deux mille vingt deux Sénégalu Abdou Diouf du Sénégalu deux mille vingt deux mais ab lay Wade nekkatul Sénégal bii nga xam ne tey moom la Macky Sall jiite malgré nag moom xamu ko problème bi yëpp foofu la nekk. ma jàpp ne xëy na bu dee moom la c'est trop ndax yaakaar naa ne nit bu ñu la joxee réew lu ëpp fukki at ak ni mu jotee Sénégal mu métti woon lool bu ñu toogaatee tey yenn question yi ñu koy posé ci biir Sénégal yenn débat yi ñu ko fi posé da nga naan problème am na xëy na nag ñi dénk mooy dañu gëm ne daanaka moom jeexal na mooy ñi ñëwi wuutu ko ëllëg ñu génnee fi nga xamante ne ba moom génnewul woon foofu te mooy fekki sénégalais yi ci seen i bëgg-bëgg fekki sénégalais yi ci xam ne sénégalais yot wañ ko doon dóor a dem kenn sàmmeetu ko ko tey loolu moom jàpp naa ne nit ku am xel tuuti te am gis-gis am vision loolu foo mën a jëm war nga ko yóbbaale ndax it nag dafa metti nit mënuñu toog tey ak ci li ñu toog ci ay ressources ni ma ko waxee léegi li ñu am ci ay ay ay ay nit ñoo xamante ne bi xam-xam bi mu ngi fi bu ñu toogee tey li ñuy dund ci ci précarité vraiment vraiment doy na waar a ah, loolu nag jàpp naa ne ku gis jeunesse su tey bi nga xam ne ñu ngi ci yoon wi kon li des mooy ñu am rek benn commandant boo xam ne bateau boobu nga xam ne mu ngi direeku nag jëm ci changement te mën naa ne mu ngi ci digg waax bi commandant boobu dina xam bu baax a baax a baax fan la fan la jeunesse bi jëm fan la population bi jëm lu am solo la euh, lan ngay tàggatoo ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo la doon seetaan di topp émission bi nga xam ne mooy seen at li may tàggatoo rek mooy euh, te moom laay mujjee mu gën a ma neex xëy na moom la waroon a njëkkee mm-hmm. mooy parti bi ma bokk te muy Pastef mm-hmm. ñoom it ñu leen di remercier au passage ci liggéey bu rafet mm-hmm. bi ñuy def loolu nag bu ma ko waxee dama koy damay ci jiital ki nekk ci njiit ba muy ni ñu koy waxee ñun ci suñu partiku ku sell ki euh, président Ousmane Sonko euh, loolu moom yaakaar naa ne duñu duñu jeexal te te duñu ko duñu ko duñu ko magnifier mm-hmm. euh, politique moom la ñu choisir àndal. Ah, moom la ñu jàpp ne itam. bato bu bi ma tudd léegi ne mu ngi ci waax bi di jëree ko. Ah, jàpp nañ ne mooy commandant bu baax bi. mi nga xam ne dina ko dawal bu ci yàlla àndee. ñu gis beneen Sénégal. Sénégal meilleur. Sénégal boo xam ne wax dëgg yàlla dinañu xam. lan mooy caf koy dund ndax am nañu ko nag xëy na yorin yi ñoo wuute te politique bi muy mene tey ñun ñu bokk ko ak moom gis nañ ne bu ñu yàlla suturaalee ba jàpp lañu ba Sénégal tabbi ci ay loxoom vraiment Sénégal dina am change yelente woon nag ñëpp xamee ko noonu loolu nag yaakaar naa ne caaxaan duñu ci yóbbu gëm-gëm bu mat moo ñu ca yóbbu ñun ñii kotuwaaye nañ ko ba mu deful politique xam nañu ko ànd nañoo ko moom itam ca ba muy def politique jaxasoo ak moom dugg ci parti bi waaye am nañu yaakaar ne bu yàlla xañewul wala bu yàlla tasal suñu yaakaar ah, mën nañu gis beneen ëllëgu Sénégal yàlla nañ ci yàlla yóbbu mais nuyu coordination départementale bu Pasteur bu Bambey nga xam ne wax dëgg yàlla ñun ñoo bokk liggéey bi loolu nag bu ko waxee damay nuyu commune ya fa nekk yépp nga xam patriote nga fa partout xëy dañuy bañ guddal rek di def liggéey bu am solo ba bañuy àgg si nag ci euh, commune bi nga ne man falaay milité muy ndàngal ma ma ànd fa ak samay naataangoo ay jeunes ah wax dëgg la di def liggéey bu am solo boo xam ne ñoo ngi ko bokk ak population bi bu ma nee population bi nag di góor ñi di jigéen ñi di mag ñi ak ndaw yi muy liggéey boo xam ne yombul tey ak li ñuy dund ci diabolisation li ñuy dund dund ci bundu xatal mais malgré loolu ñu ngi def liggéey bu am solo ñu ngi leen di remercier ñoom ñëpp au passage di remercier aussi samay samay militant wu bopp nag ndax xëy na ci ndàngal ma wax dëgg yàlla am nañ fa ñoo xam ne même bu ñu bokkul ci Pastef te ñu ngi leen di gën a woo samay sympathisant lañu ñu gën a jàpp ci liggéey bi gën a jege parti bi gën ci dugal seen loxo fu ñu mën a nekk nag ci biir commune bi wala ci biir département bi ñooñu it ñoo ngi leen di ñoo ngi leen di li nuyu ndax à travers liggéey yi nga xam ne moom nga dégg tey ñu ko fiy wax mm-hmm. ak suñu taxawaay ci biir commune beeg département bi wax dëgg yàlla moo ñu dimbali man man naa ne bi may dugg ci politique yàgg na ndax yàgg naa nekk militant mm-hmm. yàgg naa di liggéey ci ay parti mm-hmm. mais yàgguma taxaw daagaan baatu askan bi ci élection locale yi passé Euh, ci laa ko tàmbali ci façon boo xam ne sax wax dëgg yàlla façon bu xat la mhm. ndax bi ñu demee ba élection yi jege si ci la ma sama parti tànn wala ñu am ci man confiance mhm. pour ma nekk seen candidat mu nekkoon temps bu xat boo xam ne wax dëgg la liggéey mën nañ ne sax xeju fi woon mhm. mais malgré loolu dëgg-dëgg bi ñuy am ci ñun ak it li ñuy gis ci lu tuuti ci ay liggéey ñu koy def ñu jox ñu confiance boo xam ne mën naa ne wax dëgg yàlla résultat bu bu bu bu bu satisfaisante la ñu amoon ci ci euh, ci élection yi mm-hmm. ndax ni ma ko waxee yombul mm-hmm. euh, diire bu gàtt boobu mm-hmm. nga dem ci ci élection ci neuf candidats wala dix nga terminer deuxième ak score bu ndaw boo xam ne mën naa ne kii jiitu nekk ci pouvoir yor ay ndombal tànk ak ni ñu koy waxee moyens yi <laughs> vraiment nga mën a nga mën a topp ci ginnaaw am ak écart bu seere boobu mm-hmm. loolu wax dëgg yàlla population bi lañ koy lañ koy delloo njukkal ah te di leen wax nag ne comme ni ma koy waxee rek euh, vraiment dugg nañ ci politique mais ak façon boo xam ne bokkul ak ni ñu ko xamee woon bu ko defee loolu itam am na ñu ciy comprendre bu baax a baax waaye yaakaar naa ne Sénégal mm-hmm. changement biñ ci bëgg ak coppite biñ ci bëgg mm-hmm. buñ ci bëggee dem nag dina metti comme ni ma ko waxee mais population bi itam dinañ ñu muñal ndax ni ñu xamee tey Sénégal euh, wax dëgg yàlla politique ñu koy mënee ah, dafa wuute ak li nga xam ne moo ñuy noppali ëllëg ndax alalu askan wi tey bu ñu ko jàppee di ko pasar pasare di leen ko jox ëllëg yaakaar naa ne bu ñu toogee ah xawma lu ñuy jox askan wi te bu ñu sañoon day vraiment ëllëg bu yàlla taxee ñu yor ay responsabilité dañuy liggéeyal askan wi mais bàyyi leen ak li ñu moom a ah, loolu nag yaakaar naa ne bu ko nit ki bëggee population bi fokk ñu comprendre ko jàppale ko ci loolu bu dee la ñuy liggéey ci social ñun ñoo ko moomal suñu bopp loolu nag xëy na dajul ñëpp ah bu ko defee képp koo xamante ne kii xëy na yegg na ci yow ah, nga jàpp rek na lu tuuti la boo xam loo xam ne suñu yéene ëppoon na loolu ku mu yëgul ci moom itam moo xam ne yéene bi yegg na foofu waaye suñuy moyens yu bopp yu ndaw a ndaw a ndaw la ñu yor yoo xam ne du moyen état waaye ñun ñoo koy faggul suñu bopp du alal ju bari joo xam ne dañu ko denc mais nag ni ma ko waxee léegi li ñuy amal suñu bopp daal dinañ ci bàyyi loo xam ne suñu pour suñu bopp suñu njaboot mais dinañ ci bàyyi loo xam ne day delluwaat ci biir askan wi terewul nag ñoo ngi ci ay programme yu am solo yoo xam ne ñoo ngi koy nas euh, nga xam ne dina méngoo ak ni ñu bëgge politique ak ni ñu ko gisee te mooy fexe taxawal loo xam ne dinañu mën a jàppale bu baax a baax a baax jigéen ñi ndax coro man fi ma dëkk wala jigéen ñi dañ fa son lool lool lool te man man naa ne li ma gën a motiver boo jógee ci politique bi ni ñu ci amee gis-gis mooy askan woowu muy ay jigéen yoo xam ne ñu ngi daw suba ak ngoon guddi ak bëccëg même bu dee benn contribution bu ndaw la bu modeste ñu mën a xam ne lii ñun ñoo ko dimbalee jigéen ñi mais avenir u bi aussi wax nga ko léegi lu am solo la dañu nekk ci guddi goo xamante ne bii bët setagul lëndëm goo xam ne xale yooyu seen ëllëg ëllëg xamuñu naka lay demee ñooñu itam vraiment aventure boobu buñ ci mënee ànd ak ñoom lu ñu am ci expérience li ñu am ci loo xamante ne bii war nañ ko ànd ak ñoom war nañ leen ko dimbalee war nañ leen mën a yombalal ñoom itam tey ñun fu ñu àgg tey ñu mën a yegg foofu ah ñoom it loolu suñu defi la ñu ngi ciy liggéey bu ko defee ay programme la nag yoo xam ne ñu ngi koy xaatim ñu ngi ciy xalaat ñu ngi ciy liggéey ak ñoo xam ne seen xam-xam màcc na ci côté boobu te bu ci yàlla àndee incha allahu rabbi dinañu fexe ba taxawal ko Euh, lépp nag doon njëriñu askan wi euh, ci façon boo xam ne nag façon bu ñu organiser lay doon nga xam ne wax dëgg yàlla dina wuute ak liñ doon liñ doon gis ah, du ñu tëj nag te yéen itam mm-hmm. du ñu leen remercier bu baax a baax a baax mm-hmm. ci euh, déplacement bi mm-hmm. ah, xam ngeen ne yombul tey heure bii ñuy enregistré émission bi ngeen jóge fu sore sore sori ñëw ba fii ah ñu ngi leen di remercier au passage di la ci jiital yow mi nga xam ne mm. euh, peut-être yow yaay euh, wala boog yow laa ëpp li may dégganteel mm. mais équipe technique bi suñu caméraman bu baax bi moom it ñoo ngi koy ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax a baax mm. ak équipe bi ngeen ko àndal ak itam auditeur ak auditrices yi nga xam ne ñoo ngi suivre seen page yi ah di woo ñëpp nag yaakaar naa ne population Bambey bu émission bi génnee jàpp naa ne di nga am di nga am ay ay kii yu <laughs> ay abone ay abone yu am solo incha allahu rabbi ah, di nga ci gis changement bu ci yàlla ànd hmm, leen di remercier bu baax a baax a baax hmm. d'accord ñu koy nag maa teg tey nag maa teg lamp bi de <laughs> waaw di rafetlu bu baax ànd bi nga xamante ne nii yéen a koy ànd émission bu mag bi di seen actu waaye di rafetlu bu baax suñu invité bi ñu àndaloon di ba Badara Diouf di kontaan bu baax ci ànd gi nga xam ne ànd nga ko ak ñun temps bi ñu la téye yépp mu nekk euh, tamit nit boo xamante ne wax dëgg yàlla nit bu bu bu oyof la euh, sonn na moom sonn nañ waaye moom tamit sonn na heure bu ñu ko woowee rek euh, jël na téléphone. Euh, wala mu mu rappelé ñu donc ñu koy ñu koy gërëm bu baax euh, di la remercier monsieur Diouf euh, di la wax ni ñu ngi lay jox dig daje ñu ngi tàggatoo ak yow tàggatoo bu dul jeex di gërëm ñëpp ñoo xamante ni àndoon nañ ak ñun ci émission bi di ñu seetaan di wax ni ñu ngi leen di tàggu leen wax beneen numéro incha allah jërëjëf merci.